ak mag ku am soixante ans soixante dix an dugg si ab foos foofu si Touba Guédé dañ koy wax ko Fallou Kébé ñu gën kaa xam si xalifa Kébé xalifa kebe moomu sama nijaay la moo ma yar moo ma defal lépp ba moo ñu may sax soxna doomam jarbaatam ma ngay sëy suñu kër ca Mbàkke boolu Touba xalifa Kébé moomu ba mu duggee si foos boobu yàlla def ko mu dugal si foos boobu ba léegi kenn xamul dugal ba ba muy nekk ca kër ga mu nekk fa ab magam ju mu bokkal ndey ak baay ñu tuddee ko xaadim kebe Cheikh Ahmadou Bamba kebe mu nekk magam ñu bokk benn ndey benn baay yarandoo màggandoo mën naan dem Amérique di ñëw bi ñu ñëwee Kazu Rajab ñoom ñaar ñu jógee Ndakaaru ñëw si kër gi nekk Gédé di ko defar di ko réfectionné far couvre-feu dugg ak semi confinement bi ñu tëju Touba toog fa continuer liggéey liggéey kër gi di ca nekk ci loolu la nekk ci loolu la nekk ci loolu la nekk bali xew ajjuma bii daati xew Xalifa Kebe moom di fàllu dugg ci fosse bi far dese defa 19 bi police ñëwee ak sapeur pompier bi leen arrêté ñu génne ko Xaadim Kebe moomu nekk na moom ci kër gi te mbokk ndey ak baay am 67 ans 68 ans diabétique sévère handicapé pied gauche ay fer moo nekk ci tànk bi maladif police na ko comme yow la nekkoon dañ lay jël yóbbu la entendre la commissaire police bu Touba basiru Sarr di sama xarit ma xam ko bu baax a baax a baax a baax mu jël ko yóbbu ko sa commissariat ba ajji mu ba léegi ba mu ko yóbbu foofu mu téye ko ba mu ko téyee sama rakib ne ko commissaire kii ngay faranloo fii il est maladif il est diabétique te jamono ji neexut comme am na fi kër am na fi mbokk bàyyi ko muy fanaan kër ga boo ko waxtu woo ko mu ñëw nga ententre ko parce que nit du baaree boole ñaari pen boole ko rakkam bi mbokk ak ndey ak bàyyi dugg si demin demin wu mel nii nga téye ko moom mi tamit di ko entendre si condition commissaire na fi la koy téye du ko bàyyi mu téye ko àjjuma gaaw démb altine mu def crise démb si commissariat bu police bu Touba commissariat bi daal tiit jël seen fourgonnette boobu dugal ko ci boole seeg sama benn cousin bi mu nekkaloon foofu ñu yóbbu ko janatu Mahwa Sowetaas yàlla def mu fargaañu léegi nii muy ñaari mettit yoo xam ne police Touba moo ñu teg benn bi tooñ une famille tas ak njaboot tas une famille jël naqar yokk ci naqar ndax bu jëyee amee kenn bu ñu def enquête ñu xam fu tooro yi féete waaye booy def enquete na nga xam na nga koy defee man li ma xam si ci enquête bu accusé nit nit ki am une résidence nga xam ko identifier ko jëru tey ci commissariat waxantuma koo xam ne dafa jagati yaramam neexut xanaa loolu mooy rey nit ba pare mu ñàkk rakkam ji bokkoon rek bàyyi ba nga xam ne bañ amee juddoo ba léegi moom moo ko yar ñooy ñooy ànd suba ngoon kenn mënu leen a xajale nga téye ko mu ñàkk rakkam nga woo ko téye ko dugal ko ci commissariat téye ko garde à ko ba mu def fa crise nga jébba fa ko réanimation mu décédé nga nga lor ñaari famille loolu laa waxoon dama koy interpellé le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, un ami, un frère, ku ma xam depuis Italie di interpeller président de la République Macky Sall sa fonctionnaire yi ñoom ñoo ëpp li ñuy rey Covid laa la wax Covid parce que li ñuy rey nii leer na ma li ñu dal ni dal na ay sénégalais yu bare bare bare bare bare bare si may ñaan le procureur de Mbacké moo ami le procureur TJ tribunal grande instance ñu entendre policiers yi entendre le commissaire entendre njaboot gi xool mbir mu nan la demee lu tax ñu mën fa téye noonu xaadim koy ba mu dee si commissariat bi ban yóbbu ko di ka lagar lagar fu police sa loo xam ne ñu ko fenn di ñaan njiit réew mi mu wax ñi nga xam nañu ñu yor wàllu yoon si réew mi ni ñuy traité askan wi billaahi wallahi tallaahi covid bi ñuy wax ñoo raw covid li ñuy def rey sa rak dugg si soos décédé amul lu ko gën a metti nga nekk ak moom juróom benn fukki at nga xëy ñu jël la yóbbu la téye la si ba nga def fa crise ba far dese defa sëñ bi loolu metti na